asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre sur Wassare TV xam naa nag kanam gi moom miine loon ko fii mais li ñuy wax rek xam nga nit moom di nga benn moment boo xamante ni comme que kii kii ma jàkkaar lool moom nekkoon na seen <laughs> CNG nekk arbitre boo xamante ni macha allah tamit jékki-jékki ñu kii ko ñu dàq ko kon tamit xam nga dàq ak kii ñoo ànd euh, tey nag ah, li nga xamante ni moom mooy buzz bi ndax kanam gi koo gis xam ni sax. boo ko daan wax affaire u kii sax ITV daal la no affaire yooyu mais tey nag moom wax dëgg yàlla dañ ko soxla ndax buzz bi moom la Sitor nekk koo xam te ni kenn du ko présenté kenn mu nekk ci li nga xam te ni ñëpp xam nañ ni problème arbitrage moom moo fay chef bañ na ko ba Sitor sax lu mu arbitre du neex surtout journée yu mag yi moom ñu leen di nuyuwaale au passage ku ci mel ni ay Malick Ngom ak Babacar bari nañ macha allah tey nag ñu am lu ñu doon xeex loo xamante ni ren lañ ko commencé xeex. ñu dem di ci dem di ci dem ba ay dàq am ci ba ñoo xam te ni ñii dañ leen a aj ay 5 ans moom moom dañ koo dàq à vie stratégie la wala du stratégie wala dàq à daam lu ci lax su yooyu yëpp dañ bëgg a xam euh, Sitor maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay maa ngi fay waa wasaare yëpp ah nuyu maa ngi lay fay laa. bi rek jar na ngay nuyoo nuyoo bu gàtt bi. a ah, li nga ma nuyoo rek laa la toon da nga ne eh, maa ngi lay nuyu ma ne maa ngi lay fay léegi maa ngi nuyu waa wasaare yëpp waaw di leen eh, dalal fii eh, li nga wax nag dégg naa ko nee nga dañ la dàq effectivement dañ ma dàq dañ ma dàq ci li ma doon yëngatu lu yàgg 23 ans mm-hmm. waaw maa ngi fi depuis 97 CNG foog naa 96 80 saison 96 97 laa fi ñëw laa dugg ci làmb ji CNG ñëw fi 94 donc jiitoo wuñ ma lu bëri. lu bëri sax si ñun la démarré euh, ci changement yi amoon ci làmb yu bëri si ñun la démarré donc euh, moo tax lii bu amee euh, dem ci sawar a wax bu baax. Sitor wax nga ko ñu gis ni yéen seen xeex bi ñu bari ne nañ da ngeen a yéex xeex mais Sitor ngeen bàyyi ba kopparfoor yi dugg ngeen commencé da ngeen di xeex. li tax yéen bu njëkk ba xeexoo leen seen i droit ay assurance ay gars yi nekk ci région bi nañ tollook ñun xam nga ak xaalis bi ñu leen doon fay cinquante deux mille pour yéen cinq personnes yéen ko ngeen dem ba heure bii bëgg ko xeex lu waral lool. waaw dañoo sës nag euh, comme ni nga ko waxee ñun bi ñu fi nekkee ba léegi ñu ngi xeex xam nga bu ma la nee même xalifa bi mu nekkee président arbitre yi dañ doon xeex loolu mais xam nga CNG ni mu bindoo la yow boo nekkee benn commission ci biir CNG. Euh, da ngay jàpp ne CNG moom mooy état CNG mooy ministère des sports donc loo war a wax da ngay xool fan nga koy waxee ak nan nga koy waxee maanaam tey jii boo amee lu la naqari da ngay dem rek toog ak soxla soxlawul ngay dem ci ministre parce que wax ak CNG mooy wax ak ministre bi ñu toog na affaire di ñu naqari chaque année nag dañu doon nax man naa maanaam man daal ni ma ko jàppee nax la parce que boo xoolee ren li tax li am mooy dañoo dem ba xam ne kenn mënatuñu nax dañ doon bind ñu ne ñu bind leen ko réfléchir leen ci tel point ñuy réfléchir ci tele point dara du ci sotti ñu ñu koy def chaque année dara du sotti ren nag luñ ñu wax rek ñu teel ko def bind leen ñu bind euh, bu ma waxee problème région yi bind leen ñu bind nu mu gën a gaawee léegi biñ biñ bindee nu mu gën a gaawee ñu gis ne lii réglé wuñ ci dara parce que ñun xam nga boo xoolee rek ñu jóg te temps li ñuy wax ne ay ati at la soo gisee ñu toog ba moment bi ñu ci wax dañoo sës dañoo sës chaque jour ma teg ko réunion ba xam ne dama bëggoon ñu xam ne ñun naqari nañu maanaam ñun ñëpp xam nañ ne CNG chaque année daf ñuy naan boo ne assurance ñu ne la waaw léegi dinañ jéem a réfléchir nan lañu mun mën a def ba assurer leen nga toog ñu xaar non wax nañu assureur bi nee na d'ailleurs dinañ fi ñëw ñu koy def noonu di ko def noonu ba at bi jeex ren rek on a compris ba ma dem ba wax président Aliou Sarr président ñun de comprendre nañ seen jeu léegi chaque fois da ngeen di bàyyi mu jàll di ko traîner ba affaire finalement bu soree rek ñun ñu bàyyi parce que mënoo dem ba ci digg bi ngay waxaat yenn yi loolu la ñu remarqué woon quoi moo tax ñu teel ko fësal léegi bi ñu defee loolu ñu gis ne même chose moo nar amaat ñu teel a alerté Alioune président bi waxoo ko ba léegi gisuñu changement ñu ne nag sama waay euh, il est temps ñu arrêté surtout bi ñu gisee combat bi jàll mooy ñàkk jëriñu c'est waaw combat boobu nga xam dafa amoon tension ñëpp ne sama waay il faut ñu xoolaat suñu bopp ñun fi ñu nekk nii sécurité amu ci euh, sécurité nag fu mu amul il est temps nit ki jóg. xool nan la lan lan lay xoolaatee nan lay def ci eh, eh, sàmmee yaramam sàmm boppam léegi sàmm arbitre yëpp Sénégal si lañ ne il faut ñu taxaw si assurance CNG bi ñu demee wax leen ko ñu ne ñu def leen li ngeen xalaat ni yëpp def leen ko si benn kayit ñu def suñu mémorandum dem jox ko CNG bi ñu ko joxee CNG euh, ma delluwaat réunion di ko waxaat ñu xëy benn jour ne ma lii yëpp duñ ko def munuñu ko président Alioune Sarr ne loolu yëpp munuñu ko lu ñu mënul nag duñ ko def ma ok léegi ma ne ah kon xam naa ñun dañuy dem en grève bi ma waxee loolu Babacar Diouf ne ma je ne vous pas bi ma bi ma waxee loolu Alioune Sarr ne loolu bu leen waxati ci loolu euh, loolu bu jotee dinañ jël suñu matuwaay om prendra les dispositions menace la en quelque sorte bi ñu ne on prendra les dispositions euh, ñun tam ñu ñu toog di xaar comme que man annoncé woon naa leen grève ma ñëwaat benn jour bi ñu defee suñu réunion ñun arbitre le mercredi ñu continuer ko le jeudi avec les régions le vendredi ma jox leen information comme quoi dañuy dem en le temps bi ñu leen jox pour nee leen dañuy dem en ñoom si lañ jël temps boobu wut si ay arbitre mais musuñ jël temps pour wax ak ñun wax laaj ñu la personne morale du CNG Alioune Sarr musuma woo musuma woo ci problème musu ci wax sax ñoom li ñuy wax rek mooy li nga def dafa garaaw dinañ xool nu ñuy def ku nekk na jël responsabilité am taxawaat ci loolu daal dëgër ci noonu au fait loolu lañ def Euh, loolu moo indi tey ji lii li ñu kaas nag wax nañ ko ñëpp dégg nañ ko ñoom jéemuñ ci indi saafara loolu lañ waaw li ñu doon kaas euh, ma waxaat ko une fois mooy assurance yi déjà euh, honoraire u arbitre li ñu jot dafa tuuti trop par rapport ak lii xew ci làmb ji et en plus lutte avec frappe lutte avec frappe affaire yi 52 500 yooyu ngeen di la sax parce que bu dee 7 combats la 35 000 les 52 500 mooy 10 combats yi léegi ñu xool ne li ñuy jot boo xoolee combat yëpp ñoom dañuy arrangé wu ba combat dañ koy négocier sax foofu en quelque sorte mhm. euh, wu ba nga xam ne combat day nekk yëpp même égale valeur maanaam combat bi day ba nga xam ne arbitre lu ñu mënta jot cinquante deux mille cinq lay jot ce qui est malheureux loolu lañ constaté bu ngeen demee ngeen xool ku ngeen xool combat jàll yëpp mun nañ la wax ñaata lañ jot euh, léegi nag fourchette boobu noonu bu dee lutte avec frappe la lutte sans frappe 70 pour cent wu frais d' organisation yi à Dakar dañ koy respecté Fatick ville dañ koy respecté Diofior dañ koy respecté euh, à part loolu amul beneen région bu ko fi respecté arbitre dans les région lu leen neex lañ leen di jox. Mm-hmm. te pourtant même réglement boobu moo régir Sénégal bi yëpp léegi pourquoi région yi ñu leen fay seen droit pourquoi mais bi ñu ko waxee CNG ne way loolu dinañ ci jóg bind nañ circulaire bi koy rappeler région yi mais taxul ñu fay leen. duñ leen sax faale dañuy continuer li ñu doon def léegi na arbitre région yi bu ñu waxee ma ñëw wax ko CNG ñu ne ma nañ bind ñu bind joxe ko. wa man maay président arbitre man damay représenté arbitre mais c'est que ñoom dañuy fàtte ne man lii sama représentation moom moo indi biir CNG c'est pas parce que dama ñëw rek pour nekk CNG non. commission laa yore commission ay arbitre ci nekk bu ñu amee lu leen naqari man lañ koy wax su ma demee réunion ma wax ko man li ma def mooy lii yi ñi ma nekkal ma jiite leen loolu laa teg ci table bi wax ko man dew ma ci biti di wax loo xam ne amul dama ñëw wax parce que man laqatum sàccu ñu defuñu loo xam ne du noonu ñëw nañu wax ko defuñ ci dara léegi région yi li ñu doon kaas bind nañ kenn répondre ñu defuñu dara ci loolu arbitre yi nekk ay arbitre départementaux régionaux dañuy aspirer nekk arbitre international il faut nga am benn niveau arbitre international il faut nga am xaalis booy defee kii bi stage pour nekk international ñun ñii di la wax ni bu ñu nekkee international tey ñun ñoo fay suñu xaalis pour nekk international dañoo fay def concours bi jàll léegi nag génération bii di ñëw nii bu ñu bëggee nekk arbitre international day métti trop ñun chance bi ñu amoon mooy Sénégal la amee loolu il faut ñu xam ko bu amulewul Sénégal kenn du fi nekk international parce que soo waree dem nekk arbitre international nga war a fay ay 1 million et quelque 2 la ko parce que bu dee CNG du la fayal dara parce que nii ma la ñun ñoo fay CNG fayaluñu léeg-léeg CNG boo waree fay euh, nee na moitié lay fay mais moitié ba léegi mooy arbitre da war a fay 1 million et quelque 1 million 500 te ñu bëri loolu jaralu leen ko léegi noonu loolu c'est pas encourager les jeunes à vouloir être un international loolu pour man amatul sens beneen bi mooy ñun arbitre internationaux ñooy jënd suñu vignette chaque année. chaque année ñooy jënd suñu vignette chaque année. ah man loolu loolu man rek dafa am fu may yem quoi. man am leen ni que ni CNG instant bi xaalis bi fa nekk est-ce que loolu taxul tamit tamit ngeen bëgg ku leen yokkal moo tax ngeen di kaas seen droit ndax Sitor bi ngeen fa nekkee yàgg na mais ñu dem ba dernier moment dernier moment yéen ñëpp dañ seen xeex bi dafa yéex quoi dafa yéex a génn torop torop xëy est-ce que nekk koppar foor yi ngeen bëgg tamit ñam di gars yi naan CNG am na xaalis am na xaalis koppar foor yooyu ngeen bëgg a ñam non du loolu loolu c'est que wax naa la ko sànq résumé naa nee naa la lépp ci combat bële la jóge euh, combat ñàkk jëriñu boobu. mais est-ce que yoo xamante ne daal na fi am yoo xamante ne am na violence mais tey combat Alioune Seye 2 ak ñàkk jëriñu daal combat boobu daal ngeen xam ne carrément léegi dañ leen a war a assuré. waaw si lañ ne dafa sës man gis nga combat boobu ñu wax ni ñun sa fekk ñu ngi woon Algérie ñu ngi woon championnat d'Afrique mais information yi ñu jot nit ñi di ñu woo di wax arbitre di woote di wax naan booy. risques yi ñu jël nag il est temps ñu nangam il est temps il est temps léegi ci il est temps yooyu si yu bëri loolu moo tax na ñu jël décision bi mais nekkul ne ay kees ñun xooluñu loolu sax parce que bu ñu doon xool loolu foog naa dina métti parce que ñu bëri dañu ñuy reproché ne soo gisee ñuy avertir dañ ñu siy fay non loin de là ñun calculé wuñu loolu. non loolu mënul nekk sax loolu bu ñu ko doon def sax ñun duñ ko nangu parce que tey jii bu doon dañ ñuy fay ci loolu day tax ñu ne kon arbitre lii moo tax ñuy avertir. ñun xalaatuñu loolu loolu musul nekk suñu kii ci combat la ñuy jugé ni nga war a arbitrer ci yoon bu la fonction bi mayee ne li nga war a def loolu ngay def mais amul dara benn calcul bu ci def boo xam ne yéeg ci côté xaalis bu doon xaalis tey rek duñ fi toog ba heure bi mais il est bon nit ki buy jël risque au moins mu am benn prime de risque sax mais yow non seulement assuré wuñ la joxuñu la loo xam ne jar na ko parce que nit des fois liñ lay joxee mun na tax nga ne ah ma jël risque bi mais bu dee dañ lay jox loo xam ne sa bakkan mu ngi ci xotti góor à tout moment mun nga am benn affaire boo xam ne su la daloon tey ji yaay faj ji sa bopp mais jaratu ko loolu rek la du leneen. Mhm. Sitor kenn du la présenté kenn ni ma ko waxee sànq mais Sitor tey bañ ne Sitor dañ ko dàq à vie Malick Ngom 5 ans Babacar 5 ans ñi des ñoo ñoo mais loolu après Dramé 2 ans mais après loolu lan la def si yow. te li nga xamante ni moom mooy sa liggéey bien vrai que ni am na leneen ci looy yëngu lu dul loolu mais lan la def si yow ak ñi nga ni sa entourage ak ñi nga ni moom nga seqal liggéey bi. waaw ma euh, naqari na ma trop lu tax mu naqari moom mooy euh, musumoon xalaat li musumoon xalaat lii parce que dafa mel ni ñun nekkuñu ci démocratie dafa mel ni dëkk bi euh, nit ñi dañuy seetaan mu dem parce que benn nit di def lu ko neex di jël décision yu ko neex moo fi am. Euh, waaw moom laa parce que moom ci structure bi ma yëngatu moom laa euh, lu tax mu métti moom mooy at yi ma def yëpp ci ci làmb man amul leneen lu ma xalaat luy yàq làmb amul lu ma jóg ci domaine yëpp la nag man su bu ma dugg rek damay bugg def fa loo xam ne nit ñi dañuy xam ne man liggéey moom ma tax a jóg on tout fait pour que la lutte avance pendant bi ñu nekkee étudiant lañ lañ commencé loolu def lépp pour que la lutte marche et c'est pas pour rien que CNG woowu ma foofu parce que man du man maa waxoon ne damay dem CNG CNG ñoo woo ñoom ñoo tànn ci arbitre ne kii lañ bëgg mu ñëw fii léegi nag bu ñu demee ba wax ko xëy na dañoo gisatul lu leen neex mais man de jàpp naa ne ba nii nii nii sama liggéey laa doon def dama représenté ay nit nag bu ñu amee lu leen naqari damay jóg kaas ko ça m'a fait très mal ak li ma def yëpp ça m'a très fait ça fait mal ak ñi ma nekkaloon ñuy liggéey ba heure bii ñu toog gis ne lii mooy la solution euh, ça m'a fait mal lu tax mu naqari ma mooy gis naa ñu def lu gën a garaaw ma nekk ak ñoom biir CNG lu garaaw trop kenn waxu ci maanaam article yi ñuy wax tey jii dafa mel ni nekkuloon ci règlement moment bi may gis loolu yëpp léegi nag il a fallu que mu tombe ci man ñuy doog a gis article yooyu parce que xaw ma soit dañoo mënul liir lire wala dañoo dañoo tànn ki ñu ko war a defal quoi ki ñuy doog liir lire ñu ngi koy doog a gis moment bi quoi loolu nag moo tax affaire bi naqari ma trop am ñu ne stratégie la parce que Sitor am na ay njaboot yu mu yi nga xam te ñoom la àndal ñu ne buñ defee noonu tey peut-être ministre Matar Ba ñu koy ñaan tamit ah ndax wax dëgg yàlla yéen ko ñu koy waxee rek da ngeen a bokk ci làmb parce que ñun yéen la ñu tàmm a gis tey ministre Matar Ba tey mën naa ñëw ñaan wax ak yéen mais gars daal ne ñu bari nañ sax gëmuñu ko sax ndax ay affaire stratégie lañ ko teg daal mais yow est-ce que réellement tey nii nii buñ la wowoon pour waxtaan ak yow dindi daan yëpp si loolu dina ñëwaat. waaw euh, c'est que dafa point yoo xam ne mënuma ci wax xam nga lu tax ñun dañoo nekk si benn kuréel ñun arbitre du Sénégal dafa am ay décisions yoo xam ne ñun ñoo koy jëlandoo dañ ciy waxtaan échanger ba pare soog ci jël décision donc moo tax loolu mënuma ci prononcé wu man daal li ma mun a wax mooy ba léegi dama jàpp ne bëre kenn mënuma si jëlee parce que kenn moomu ko c'est un sport man ci sport laay liggéey ci sport laay liggéey na fii ma neex laay dem mun naa bañ a dokk ci mun naa bañ a bokk ci structure yi mun naa bañ a bokk ci benn kuréel mais bëre kenn moomu ko mun naa ci nekkee façon bu nekk nag. façon bu nekk maanaam dama bëgg a wax ne Alioune Sarr bi ñoom ñi waa CNG bii ne euh, génn na fii ci corps arbitral boo xam ne ñoom ñoo ko gérer la mais mënuñu ma jële ci bëre loolu bëre moom kenn mënu ma si jële fii léegi da ngay naan lii ñun ñoo ko yore bëgguñu nga bokk fi mais ñoom moomuñu bëre donc man boo gisee may wax loolu mooy euh, ñun musuñu tëj bunt le pré kii le ministre moom def na wàllam maanaam bi affaire bi amee dafa ma woo directement te pourtant kii ma gën a jege muy Alioune Sarr ki nga xam ne fa bokk bi problème bi amee mosuma woo dafa toog may taseeg moom ci ay réunion te muy wax leneen leneen lay wax musul wax suñu problème day ñëw rek naan woy li ngeen def nii grave c'est une grave dinañ def lii dinañ def lii loolu du wax loolu du waxu kilifa parce que kilifa la kilifa la dama koy wax mu bañ kon nag mais dëgg la parce que dafa toog benn jour di wax na ma man damay représenter ay nit maanaam dama jiite nit dama jiite jiite arbitre mu ne ma bokkul mais benn la ay nit nga jiite rek peut-être yow yaa jiite waat kuréel bi ma jiite mais terewul man dama jiite ay nit te ñii mu jiite ñi muy dégloo ñooñu man noonu laa dégloo samay gars parce que looloo tax ma dem CNG buñ ko fàtte lii tax ma dem CNG arbitre la arbitre la représente kon bu ma waxee buñ jàpp ne Sitor moo ko wax arbitre yi ñoo may yónni nee ma lii ak lii ma teg ko ci table je suis une personne morale au niveau du CNG amul leneen. mais ministre bi après bañ la dàqee ba tey déggante ngeen wala déggante woon. bon ba ni may wax yow nii nag déggante gu ma waaw déggante gu ma mais dama jàpp rek ne ministre bi mooy CNG parce que euh, démembrement wu état bi la donc. Euh, Euh, structure la boo xam ne ministère moo ko teg en place euh, donc ñun amuñu pour jéggi CNG dem ci ministre bi sauf bu ko ministre bi bëggee. beneen bi mooy euh, ñi nga xamante ne instant bi ñu ñoo ñoom ñoo ñuy arbitré ñu bari yéen keroog dégg nañ seen wax ngeen ne ñi duñu ay vrai arbitre ay arbitre lo ay arbitre locaux lañ cest à dégg nañ sax ay yeneen kii mais arbitre yooyu réellement. Euh, gars yi ñu bari nag ñu ngi leen sànni xeer mënuñoo bind rapport mënuñoo kii mais est-ce que arbitre yooyu nga gis instant bi ak yéen ak yéen ñi fi nekk am na différence. waaw mais forcément forcément il faut moom différence déjà bu su ma la waxee man rek soo jëlee exemple si man rek ma ne maa ngi fi depuis 97 rek am na différence. arbitrage nag dafa am coup de li ñuy wax coup de loolu nag ci sport la sax si lépp si domaine yëpp li ñuy wax la mais nag euh, man du pour dal ci arbitre yooyu parce que ku nekk ak fii sa xel toll. mais je trouve normal que arbitre locaux yi ñëw insister ci loolu xam nga lu tax il faut nit ñi xam lan mooy arbitre local un arbitre local mooy koo xam ne deful formation pour mun a jàll pour mën a romb beneen grade bu dul local parce que ñooñ foofu rek lañ ñu mën a yem sauf bu ñu defaatee ay étude te at yi permettre leen ñu nekk arbitre arbitre local amul benn chance nekk départemental régional national bay nekk international léegi ñooñu bu leen woowee pour ñoom honneur la ñu arbitrer fenn pour ñoom pour laay wax du pour ñëpp peut-être euh, te peut-être ak liñ ñu leen discours bi ñu leen ci booleel euh, demal nga laaj leen am na si ñenn ñoo xam ne dañ leen ne dañ leen di tester pour ngeen mun a arbitrer drapeau chef de ak yooyu am na ñoo xam loolu lañ leen wax ñoo ñu ko wax sax am na ñoo xam ne dañ ci bokkoon ñu dellu ginnaaw woo ñu expliquer ñu lan lañ leen wax. waaw am na si ñoo xam ne dañoo ñëw waxaat ñu li xew léegi nag ñooñu ay arbitre locaux lañ. su leen neexee ah parce que ñun terewuñ kenn mu arbitre mais ku ci nekk ñaanal li ñuy li ñu bëgg nii euh, maanaam musiba bañ la ci fekk assurance bi ñuy kaas ñi nañ ñaan rek loolu yëpp bañ leen fekk. Euh, yenn arbitres yi am na ci ñoo xam ne am na ci kenn koo xam ne c'est un arbitre régional kooku de son propre gré moom moo jëlal initiative boppam dem pour euh, dugg ci ci ci ci ci jàppale yeneen arbitres yi. mais am na waaw bon du suufoon xam nga foofu lool lit boo dem noonu la foo mënta dem noonu la euh, man maa ngi nii CNG laa bokk te ñoom ñoo ma dàq loolu kon foo dem noonu la quoi day am yenn saay ay décision yoo xam dañ koy jël ñii ànd ci ñii àndu ci tey jii boo demoon CNG wóor na ne am na ñoo xam ne bu bëgguñu woon loolu am am na ñoo xam ne dañ lii rek lañ doon xaar loolu yëpp am na daal dama bëgg a wax ne groupe boo gis dina am ku nekk ni ngay gisee mais ñun man ñun li ñu def ba léegi mu suñu toog di wax si ñooñu loo xam dafa ñaaw seulement lii ma gis rek mooy CNG nee nañ boo yooyu dañoo aay euh, defuñu benn erreur te ñun ñu ngi toog di gis combat yi waaw léegi ñu ne ñu ne defuñu benn erreur mais c'est normal ñu bañ a gis am pagaay c'est normal ñun sax dañ doon def ay erreur waxatuma laa ñoom man bi nee naa man daal réunion bi ma demoon keroog ñu def évaluation wu arbitre yooyu noonu man moo ma jaaxal ba léegi man bi ma nekk arbitre ba léegi musuma dégg arbitre yu def li lu mel nii ñooñu vraiment ñu ngi leen di sumil chapeau parce que defuñu benn erreur loolu nag lu ma jaaxal la ñun dañuy def erreur yu du jéem mais ñoom defuñu ci benn eh? waaw loolu c'est extraordinaire ñoom nee nañ réunion bi dama ñëw ñu naan sans kii nickel avec réunion bu ñu ñëwee dañuy def euh, évaluation galaay amuñu benn faute ma ne ñii de vraiment ñoo fi ñi ñii tey ñoo continuer ba ñoo fi mën de li ñu amul benn erreur nee na woo oh, sa c'est très bien passé booy yi kañ moom woo oh. kon ñooñu nañ continuer eh. a loolu la pour yéen ñu ñuy suivre sur Wassare TV wala Wassare Lamb Sitor dañ togg mu nekk président des arbitres wax dëgg yàlla ñu ko doon gis sax ci image bariwul mais nag nit di nga tool benn moment boo xamante ni tamit da war a wax te da wax dëgg yàlla nag arbitre nga ñu apprécier la bëgg la ndax lan sa jàmbaar ak sa lépp CNG nag kiiwu ma de xam nga rek Sitor dafay def loo xam ni macha allah ñun dañ koo fan ndax dañoo ñëw gis ko muy liggéey ba pare dafa jantal quoi xam nga dafa jantal quoi Sitor man kii bi daal doy na waar mais Sitor benn mooy arbitrage instant bi nan ko ko gisee gis nañ gis na bari na ay problème beneen bi mooy parfois ngeen arbitré combat xam nga ñii naan kii daan na kii daanul mais yow nan nga ko gisee problème arbitrage ci instant bi bon arbitrage ci instant bi ak instant yële yëpp pour man benn la quoi sauf ko def na ay jéego yu bëri am na ay évolution yu garaaw gis nga changement yu bëri yi ngay gis ni ñun ñun arbitre yi ngay gis ni nekkul ne dañuy ñëw rek siffler dem ñibbi dañuy réfléchir à la place de tout le monde parce que ñun li ñu nekkee ci biti noonu lañu nekkee ci biir dañuy toog gis affaire yoo xam ne day yàq ñu proposer CNG chaque année nag dañuy dem sorti def vendredi sa benn VSD toog réfléchir ci làmb ji proposer CNG ay ay ay changement par rapport ak li ñuy gis par rapport ak li ñuy dund loolu rek euh, wane na lu bëri ñun ñëpp buñ sañoon affaire yu progresser et d'une façon extraordinaire tey jii boo jëlee le niveau africain euh, boo jëlee Afrique noire Afrique noire laa la wax de ñetti arbitre internationaux ñeenti arbitre internationaux ñoo fi nekk ñetti ñi Sénégal lañ nekk kenn ki Nigéria loolu rek c'est extraordinaire te toll woon nañ fi ay jamono kenn rek la woon ñu toogaat benn jamono ñaar après kenn ainsi de suite donc c'est l'occasion sax de de de de ñooñu ñëpp di leen rendre hommage euh, ci loolu ñu def mooy euh, Matar Diop ak euh, kii ñi fi jóge ñëpp ay góor gi jaañ ñëpp daal ñooñu parce que ñooñu tette ba heure bii nii tey donc ay jéego yu bëri romb nañ ko pour en arriver là ban message ngay jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy population bi lay seetaan ñi nga xamante ne ànd nag Sitor ñi ànd nag moom mooy suñu papa Alioune Sarr parce que li ñuy wax lu dul jàmm ko gën te làmb facteur de développement la ñun ñëpp xaj nañ ci kenn ku nekk fa nga nekk yaa ngi cee bay sawaar naan la papa waxtaan leen ba juboo parce que ñii tamit dañ ñoo soxla ñoom it dañ leen a soxla mbëri da leen a soxla ndax daal li ñuy wax rek làmb dafa nekk loo xamante ne dafa baaxoo ay wax mais gëm nañ incha allah suñ papa Makhtar Ba mi ñuy seetaan nañ ni bu waxtaan ak ñoom woo leen rek lépp dañoo moom wax dëgg yàlla dañ leen a soxla mbër yi may seetaan ñoom dañ leen soxla parce que événement bu nekk arbitré nañ ko si toor ban message nga leen di jox ak lan nga wax suñu papa Alioune Sarr waaw man man je remercie toute la population sénégalaise parce que mënuma wax de façon unanime mais soriwu ko Euh, on a reçu beaucoup d'appels beaucoup de messages beaucoup d'encouragement euh, ci situation bi am nii et ñu bëri woon nañu seen cofeel woon nañ ñu ne ñu ngi seen ginnaaw te parce que boo amee lu la naqari da ngay wax te wax nañ ko fi ñu ko war a waxee ñun demuñ ci mbedd bi wax dañoo wax ci biir soog a génn ci biti wax biñ demee ba xam ne kenn mun régler suñu problème si lañ ko wax euh, li ñu tax a jóg nag mooy làmb jëm kanam amul leneen amuñu beneen intention saboté wuñ kenn ñun làmb rek moo ñu tax a jóg parce que si la ñuy yëngatu ay ati at bàyyi ay activité yu nekk parce que ñun ñi ngay gis ni ñu nekk ay jàngalekat nekk ci sport ku nekk da nga am sa choix foo dem ñii dañ dem football ñii dem basket yooyu man sax làmb dama ci atterrir par accident parce que man sama option football la ak athlétisme ñoom xam nañ ko ñoom ñëpp ñu bëri liñ ma xam ci football la ak athlétisme xamee wu ma ci làmb mais tey jii bu ma defee benn sacrifice ba retrouver ci situation bi donc c'était pour évoluer et aider les jeunes à évoluer donc damay jàppale booy yi nga xam ne ñu ngi doog a ñëw euh, jàppale ñi nga xam ne ñu ngi fi ba làmb am fu ñu yegg parce que image la boo xam ne ñu dañ koy euh, dañ koy wone ñun personnage la boo xam dañ koy incarner pour nit ñi en référence donc euh, li ñu tax a jóg rek du pour yàq amuñu woon benn intention def leneen intention bi ñu amoon mooy wax li ñu naqari ñu woo ñu ñu waxtaan ci benn yoon ñu trouver une solution et que la vie continue loolu mooy àdduna mais àdduna nekkul ne lu ñëw rek nga yore sa yet di dóor ça ne règle rien du tout parce que ñun defuñu ko ñun quand on le fait bu ñun arbitre la suñu jëlee décision yooyu rek dañ koy def pour si biir arbitre ba arbitre bi fa nekk sax bu xamee ne dañ ko sanctionné xam na lan moo tax ñu sanctionné mais sanctionné pour sanctionné ñenn ñiy def lii faute lu gën a garaaw loolu nga teg leen ne man pour man loolu du yoon voilà loolu daal laa amoon lu ma wax merci beaucoup. waaw euh, lii lañ leen indiloon kon niñ koy waxee rek wasaare dafa nekk loo xamante ne lépp luy actualité lépp luy information dañuy war jox leen ko nee naa leen ji li ñu fi sama chéri sama xarit di ko nuyu bu baax di ko bégee Ousin tamit suñu frère suñu lépp di wax rek lu dul jàmm-jàmm ko gën mais l'infatigable Basirou di leen nuyuwaat di la ziyaara bu wér-wér nii lañ koy defee day ñëw si nañ si toor suba xaar leen ñu mbër yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy ancien gloire yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy kon euh, ni ñu ko waxee amateurs yi ñëpp xaar leen parce que wasaare yamu ci loolu kese ñi ngi ñëw te bu ñëwee dañuy dal seen kaw